ay ca mbokk yi salaamaaleykum di leen nii bu baax a baax am mbégte kontaan te ni ngeen di ànd ak ñun saa su nekk rek ci seen émission bii di lu xew Sénégal nuñ koy ànd ak bis bu nekk rek ci ay thèmes yu am solo ci ay thèmes yu doy waar tey nag histoire bu doy waar la ñuy andi xale bu jigéen bii dafa yàgg a jaay boppam dem ba rëccu nag bëgg a bàyyi waral nag mu feggoo ak waxtaan bu yaatu ak ñun bëgg rek ni ñu dimbali ko pour burum bàyyi ko ñu lu yéen ci ay kàddoom. donc dafa ne man ñun buñ juddoo ba tey si métti àdduna rek la ñuy dund dem papa da doon liggéey jaaroñ dem ba tànki yàqu boobu ñu ngi gën a nekk xale bu ko defee guddi dañuy jox ndox ñu lekk tëdd may gis situation boobu sama yaay di souffrir duñu togg dem kër jàmbur ñu ñuy may añ ñuy dund lu metti ma dem ba àndandoo dugal ma si yoon bo may génn guddi waaye dam dafa nekk góom bu metti sama biir xol mu nekk lu ma metti su ma sañoon nag ñu jàppale ma ma ut lu may liggéey may liggéey ñu lekk sax duñ ko am léegi après si laa xamante ay samay copine si laa commencé di ànd ak ñoom di dem si baari léegi su ko defee li may am nii may ñëw di joxe dépense si fay luwaas te situation rek moom si dugal yeneen doom waaye ñooñu ay xale ndaw lañ man am naa ñaari magi jigéen waaye ñoom am nañ jëkkër mais seen situation sëy taxu koo demee noonu ñëw si man di ma ñaan yéen moom laa àttanul moo tax may génn guddi ma yaay néeg maa joxe dépense sama néeg vingt cinq mille sama néegu yaay vingt cinq yaay ñëpp a bàyyi sama yaay ndax man parce que man dama amoon benn natt na dafa am ku ma loon bi ma nekkee moom après ñuy ànd ma moom benn jour mu ne ma dag yow da nga bëri ay catal jigéen dama lay yóbbu mbuur léegi bi ma yóbbee bu ñu demee nekkante moom demul mbour passé na mbour ñu dem ñu am problème ñu téye ma fa at ma fa téye at suñu famille ay xalpulaar lañ ñëpp ñu ne sama yaay comme man dama après si lañ ma bàyyi man ak sama yaay ñëpp kenn jàppalewul sama ñëpp a seetaan sama yaay doon ànd maa ngi moom di génn ñuy nekk bu ñëwee seet si ma des fois ma dem néegam seet si ko mais jour bu ma demee néegam seeti ko si la ma yóbbu ma am problème si yoon rek la woon yàmba mais man bi ñuy dem man xaw ma si dara après si lañ ñu jàppee bi ñu jàppee nag teñ ma si at ak weer doon dixième après Dakar la doon dem di yalwaan parce que moom Dakar lay nekk moom Dakar lay nekk mën naa la yóbbu fu muy nekk nga gis ko waaw mu nekk situation bu metti torop torop torop torop metti na torop dama yaa déedéet mais am na benn jour am ku ñëw si moom ne ko sa doom bi si baali lay nekk mais sama yaay man dama yàgg sonn da sama yaay dama yàgg di liggéey di dem sadeb si di yenu ay mat boobu ñu ngi dëkk gunaas parce que ñun gunaas dañ juddoo may yenu ay mat di ko indil di liggéey min daan weer bu deewee damay xañ sama bopp sax ma jox sama yaay bopp barke waaye dama dem ba mel ni dama mel dañ ma tàggat tëdd liggéey aussi man tamit wéruma dama am kist kist laa am wéruma des fois damay jékki-jékki feebar ba nii sax dama xaw a feebar waaw vingt cinq pour si man parce que dafa metti dafa metti trop parce que ñenn ñi sax samay morom ñi ma si bokk nekkal ñoom buñ la waxee seen situation yow da ngay fàtte sa bopp metti na trop bari na. lan nga ci dund moom ban nga ma ci indil tey loo ci dund loo xam ne rek. ma sa waxanteeg benn waay mu ne ma nañ dem sama kër ma dem këram bi ma demee këram ma fa fekk yeneen xale góor mais jour dañ ma génneel paaka agressé ma jàmm mu ngi nii jëm jëm baa ngi nii. ma ñëw xale bu góor bi dañoo waxaale woon ma ne ko fay ma sama xaalis mu ne duma la fay ñeneen ñi si la ñu yeewoo après ñu tëddee ma foofu nangu sama téléphone jàmma koso bu ma bett dund naa si façon problème bu ne gàllankoor mais man après su ma demee ba wéet man kese day mel ni feebaru xol si man day metti si man parce que su ma sañoon tey lii duma ko def mais ñàkk ak situation metti moo tax sax ma koy def parce que man toog ma ne man su ma demee dem ma jël alalu jàmbur ma dem génn sama amal sama bopp moom ma gënal ma jël alalu jàmbur waaye nekkul lu ma neex metti na ma trop parce que kanamu yàlla ma jëlaat yoon bo i aw ma koy wax ak man aw ma ku may conseil ñëpp kenn considéré wu ma kenn jàppee ma nit parce que li may def la moo tax kenn jàppee ma nit ñëpp dañ ma bàyyi sama yaay. boobu laa bëgg a jël bàyyi ko waa dinaa Muhammad buñ ma jàppalee. duma duma jëlaat yoon boobu te tamit tonton Fadel mën naa ñaan leen maa ñaan si bon volontaire ku si mel ni soxna ay dara ak Youssou Ndour ñu jàppale ma te yàlla tax ñu jàppale ma te yàlla tax waaw su ma amee fu ma dugal sama yaay même su dee pàq la sax may liggéey yàlla xam na ni yoon bi duma ko jël parce que amul mucc soo si jëlewul doof di nga si jëlee dee wala nga jëlee si feebar wala nga jëlee si ay natt yoo xam ne doo xam foo koy wax jee si àdduna te ku si nekk ñaan nga yàlla am mucc bu rafet muy àdduna muy alaxira ma te tax bu baax a baax baax dem na ba xam ko xam na damay génn guddi mais sam papa xamu ko mu nekk situation metti waaye dara loolu léegi ma si poussé tëdd mënu fa jóg handicapé la da doon liggéey ci aaron di jaay mais dafa dem ba après tànk yi ñoo tax mënatul dara fu muy tëdd rek lay tëdd naa si samay parents ñoom ñoo ma gën a poussé sax ne ma demal ñoom pare nañ dem heure boo pare ñu dem loolu mën na nekk daa bëgg ñu jàppale ma si bu baax lu nekk ngi si kay moom lu nekk ngi si waxaale waa ji ba ànd ak moom ñu yóbbu ko foofu ray ko waaw si nekk parce que yu bëri lan ngay wax sañoon moom duñ si dugg parce que yoon bi dafa metti parce que des fois nga ànd ak góor mu fay la jaala doole nangu sa xaalis des fois nga ànd ak góor wax sa mu ne dama laa fay waaw te amul mucc coono kese si nekk ndax guddi ñëpp bu ñuy nelaw yow doo nelaw te des fois da ngay perte guddi da ngay génn doo am dara noonu ngay ñibbee wala ngay ut sa benn xarit boo xam ne dalay leer ni kii yor na bu jëlee oto mu wàccee waale la yoon bi daal amul benn mucc maa ngi ñaan na sama morom jigéen ak xale yu ndaw yi surtout ma xale yu ndaw yi am ay 15 ans 16 ans suma sañoon du leen jël yoon bi ngeen ut leen liggéey parce que yoon bi ay jafe-jafe ak ay métti dongo si nekk ayca mbokk yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen lii doy lool doy lool nag ndax koo xamante ni tey jii yaa ngi jaay sa bopp bëgg cee génn kon ko ko jàppale mu dem mais tamit souvent itam Sénégal dañoo gaaw a bedd nit Sénégal dañoo gaaw a teg ay pression ndax koo xamante ni tey jii jigéen la yorul lépp tegu ci ndoddam itam loole dafa xaw a métti lool waaye gis itam koo xamante ni daal daanaka. bëgg dimbali ay waajuram rek moo ko ci dugal ndax itam yenn say xale yu baree bëri ñu ngi fii ci biir réew mi seen waajur ñooy seen problème seen waajur ñooy seen maanaam euh, euh, jafe-jafe yi nga xamante ni daal mënuñoo dem bàyyi leen mënuñoo lekk bàyyi seen waajur moo tax moo tax souvent dañuy def lépp lu nga xamante ni daal ay sacrifice la pour pour mën a jàppale ñooñee gis ngeen itam moom ni mu ko waxee ndax nee na moom bëgg naa baax ndax na xam nga ku bëgg a baax moom souvent di nga gis ay ay obstacles souvent di nga bëgg liggéey doo ko am souvent góor ñu ñëw tànnaas la souvent ñu ñëw santaat la ne la kat boo boo tuddul ak man du ma la may loolu lépp nag kon euh, ay mbir la mais tamit nag souvent itam dañuy gis ni que yenn saa yi xale jigéen ñi ay àndandoo yu bon ñoo leen ci dugal loolu mais quand même nag koo xamante ni dafa ñoo toog temm mais dama bëgg a changer kooke nañ ko dimbali mu daal di changer kon dégg ngeen ni mu ko waxee xam naa ne après incha allah rabbi Eh, bu dee am nañ ci benn suite daañu ko andiwaat fi yéen ñëpp itam ngeen ngen ngeen jàpp ci bu baax a baax incha allahu rabbi mbokk yi dañuy jàll ci beneen thème bi beneen thème bi nag moo di ñaari xale yu góor yu nga xamante ni ñoom ñoo bokk benn famille ñoom dañoo bëggoon tukki jaar ci gaal yi mais boobu nag la seen ay mbokk gëj am ay nouvelle ci ñoom xam naa duma sori damay bàyyi rek ngeen déglu deuxième cas bi ñu wax ne loo déglu foofu ñëwaat léegi léegi ayca ñu dem ñëwaat. Adama man ak yaayam ñoo bokk ndey baay Mohamed xaritam la ñoom ñooy ànd presque xale boobu dafa bàyyi seen kër ñëw dëkk ci ñoom aada. kon mhm. ñoom ñaata at la ñu am. la mais aada xam naa war na am ay vingt sept ans wala vingt huit. Mhm. jour bi ama seen doon mbiri ak Sa Thiès jour boobu ñun ci lu ñu départ. boobu ba léegi moom dégguñu si ñoom dara parce que gaal gi ñi ci nekk ñoom du kenn ko woote rumeur rek la ñuy dégg ñu ne gaal gi teer na Espagne xale yi def nañu foofu recherche xale yi nekk foofu mais dem nañ ci île yëpp mais gisuñu leen foofu envoyé nañ seen photo foofu mais gisuñu leen foofu ah, d'après démb nag waxaat nañ ne am na gaal bu teer Maroc ñu jàpp ko mais information yooyu yëpp mënuñu cee basé parce que kenn wootewul si ñoom loolu moom da ngeen di dégg ay rumeur kese lañ ci am rumeur kese ñu wax ne gaal gi teer na Espagne biñ defee recherche nee nañ gaal gi teerul foofu après dem bi ñu waxaan ne gaal gi am nu gaal gu ñu teer maru ñu jàpp mais ba tey dalu suñu xel daal parce que dégguñu kenn ku bokk ci gaal gi ko woote Adama moom tàggu dëgg yàlla tàggu yaayam yëgul woon bi muy dem hmm, parce que man mii sama borom kër moo génnoon ñëw ne ma ah yow de Adama dégg naa dafa demoon ci gaal ba seen gaal dugg na ma ne ah loolu nu mu mën a nekkee te man yaay dégg ma yaayam wax ma ne ma ah dégg naa loolu de léegi kon da ngay woo yaayam laaj ko ba xam si laa woo yaayam ne ko àll ah, daf ki da ngay dafa dem ci gaal bu ba seen gaal dégg naa dugg na mu ne ma a ah, lool di yëgu ma ko aada de tàggu ma de parce que saa ma laajee xale yi moom comme day bëre su ma laajee xale yi waa dafa commencé woon di bëre mu ne su ma laajee xale yi ñu ne ma dafa dem ba pat grand prix chef de l'état du Joal tournoi bi jeexagul ci loolu la ko rakkam wax moom tamit ma jàpp ci loolu ne ma ah, kon kon kon loolu la parce que aada du xëy benn bis dajant sotta teguma ko bët kom boobu ba léegi ñoo fi nag kon loolu ñu wax ma ma ne ka ah, rumeur la da ngay laajte ba pare ma ne ma woo naa ko téléphone mënuma kaa jot ñun lii lañ si am hmm. ah yugu mu daan dem de yuguma mu daan dem parce que moom yaayam dafa daan wax naan ñemewuma gaali bul dem si gaali bu la yàlla xii ngay dem ci gaali bul dem ci gaali toogal fii ñu toog xaar yàlla loolu moom a dégg yaayam di ko wax menuisier la woon mais presque liggéey dafa doxul mu commencé di nekk ci dibire hmm. gannaaw gaal gi ba mu ànd ak yàlla rek ànd ak yàlla rek jàppale moom dëgg yàlla suñ ne am na ñuy jàppale ah ñun daal lu ñu mën ñu ngi koy def ñu ngi ñuy wax ñuy génne ay sarax ñuy digal ay sarax ñuy génne depuis ba léegi moom suñu moyen bopp la ñuy demee moom la ñuy demee rek dañuy dalal sa xel ne la gaal gi génn na ci ndox mi dañ leen téye yooyu la wax mais daal ñu daal ñu ngi toog daal di xaar daal di lancer message mooy ñu jàppale ñu parce que xam nga ne yaay dafa doom dafa métti dafa jege yaayam nga toog lu ma deux semaines gi sooto doom déggoo ko dafa métti lu ñu man ci defal ñu ay recherche ba suñu doom yi dellusiwaat suñuy loxo loolu lañu bëgg nañ ñu dimbali te yàlla rek tax defal ñu ay recherche na xale yi dellusiwaat na xale yi jom rek moo leen tax a jóg bëgg a dimbali seeni wayjur kese moo leen tax a jóg comme nag yàlla def na natt boobu léegi xamañ ci ñoom dara suñ ñu mënee dimbali ñu kii ak état espagnol wala marocain su fekkente ne gis nañ leen fenn ñu dimbal ñu leen ngir yàlla indiwaatu ñu leen. xale yi nekk Espagne ko ci woo tamit day ñoom ñu ngi def recherche foofu mais ba tey ñoom tamit amuñu benn information bu bu boo xam ne mën nañ ñu kaa indil te ñoom daal boo waxee ñu ne ñu ngi def ay recherche ñu def ay recherche. <laughs> man di jaayam laa maa yaayam ñoo bokk ndey ak baay. waaw li xew moom mën na maa wax ne dañoo bett ñun ñëpp ndax bi muy dem sax kenn yëgu ko yaayam sax yëgu ko parce que dimanche boobu man maa ñëw fii taxaw laaj yaayam nekk ani aada mu ne ma aada dafa dem. drapeau chef de l'état bi foofu la ko xale yi wax ne foofu la dem par la suite biñ ci tegee ay cinq jours si la ñëw sama atelier fekk mu fa ne ma il paraît que aada oonan que ne gaal gi mu duggoon àgg nañ mu ne ma tam man yëgu ma ada aada demee ma ne ndax ada dafa demoon mu ne ma non non man yëgu ma ne aada demoon na parce que keroog bi ma koy laaj sax maa ngi la naan dafa dem drapeau chef de l'état bi waaw. ma ne ka ah, ñoom ba woote nañ mu ne ma daal ki leen ka wax daal nee na dugg nañ mais wooteegunu par la suite ñu toog di taaxirlu ba jusqu'à présent nii daal dégguñu dara si ñoom waaw géej bokkul ak euh, euh, kaw joor gi géej moom day toll foo xam ne état rek moom moo la ci mën a dimbali parce que yow say moyen am na foo xam ne mënu faa àgg parce que gars yi gaal yi ñu yor nii man la ba passé fii bay dem di haute mer ne day seeti ay gaal yu réer quoi loolu moom état day toll foo xam ne moom état bi rek moo mën a intervenir pour pour mën ñu see jàppale waaw. def nañ ci ay ay jéego parce que o nañ fi presse bi presse bi ñëw ñu jàllale au niveau de Sen euh, Sen TV ak euh, TFM ñoom ñëpp ñëw nañ fi ñu jàllale ko pour état bi jàpp si quoi jàppale ñu si waaw. ay rek mais amuñu si dara daal lu leer. am na gaalu teer Maroc ñu jàppaleen am na ñu naan am na gaalu teer Nouadhibou waaw loolu daal la ñuy dégg daal mais chaque fois buñ ko waxee dañuy oote luñ mën di di def ay recherche quoi parce que ñii li tax ñu sonn ci mooy ay xale lañ yoo xam ne demaguñu fenn daal dañuy door a dugg seen buntu àdduna waaw loolu moo tax ñun ñu am ci problème bi parce que dañu wax ne benn xale bu demee rek mel na ni am notion la moom moo dem waaw léegi loolu nag moo tax ñu interpeller état bi lu ci man rek mu def ko mu xam ne ñi ay doomam lañ ay freeram nañ Euh, yërëmtalu na daal yërëmtalu na trop trop parce que ñi dem nii danoo nekkoon seen yaakaari waajur daal waaw loolu moo loolu moo ci nekk surtout ku nekk li li nga gën a jige rek moom nga xam mooy aada dafa nekkoon doom yaayam waaw mooy taawam bañ naka bu jugee entraînement sax day ñëw uuf si yaayam waaw du du dem fenn si yaayam rek ku ko gis daal bu jugee nga ka gis à part ça si yaayam lay toog bëgguloon muy dem si si si gaal gi mosoon na dem benn échec mais gaal googu jotu woon a tëmb sax par la suite mu toog ñun affaire bi surprise la ñu dikke daal parce que moom fan yii yëpp sax am na ay mbappat yu doon am ci àll bi foofu la doon dem di compétir waaw loolu pour ñun sax loolu génne na ci xelam daal mais affaire bi dafa bette bette goo xam ne kenn mënu ko expliquer waaw noonu la demee affaire bi daal métti non moom xale la jotul am sax dégg ay rumeur ñi naan ay cent soixante ñi naan ay cent nangam en tout cas daal lim bi daal moom kenn mënu ko à peu près lii la comp ñi da naan ay cinquante deux mais lim boobu moom valabulul cinquante deux bi moom valabulul cent yi moom teg na quoi cent yi moom teg na mais ñun waa jaare li ñu si concerné mooy ñi nga xam ne xam nañ leen mais ñeneen ñi moom gaal gi daal dafa bëri lu mu yeb daal i set huit neuf ça dépend parce que xam nga mënoo ne temps la parce que ñenn ñi bu ñuy dem dañuy nëbbu bu catastrophe amee rek ngay door a comprendre quoi waaw loolu moo tax yombul yombul man fi mu toll nii ba ma juddoo ba léegi def na ay ay at lu na gis naa ko nag ci àdduna fu ne jaar naa fa mais lu méttee nii man masuma kaa dund sama àdduna dund lu méttee nii man dama daan gis ñi am problème ci clandestin ma leen di yërëm sax mais maa ngi dooru comprendre lii góom la boo xam ne si xol lay des ñooy passeurs yi moom lii alali àddina jaruka bu leen doon bu lay fay ay milliards sax pour nga sacrifier ay xale yoo xam ne dugg duggaguñu sax seen adduna bul xool xale da ngay xool seeni waajur parce que xale yaram yaramam day tàng du ragal dara mais yow mi nga xam ne yaay mag lii bu man alali clandestin bu ma ci doon may ay milliards bëgguma ndax dara jaru ko ci àdduna wallahi lii dara jaru ko dara gisuma lenn ni àddina lu ko jar buñ la doon fay ay milliards sax jaru ko vraiment maa ngi leen di interpeller ñoom tamit képp koo xamante ni yow da nga doon liggéey ci wàllu jële ay xale fii di leen yóbbu Espagne na nga xam ne bakken moo gën a foor alal te benn xale bu dem rek nation bu dem la waaw parce que gaal gi bon bar ñi lañ wax ñoo ñoo ko tëgg mais mu ngi déparé yéen lañ wax ne fa la départ ñun dañ siy dégg nii rek ñun xamuñu sa parce que aada dafa sori si yaayam xam na ne bu ko tàggoo yaayam tere ka moo tax ñun xamuñu ci lu bari daal fu gaal gi départ ak yooyu moom xamuñu ko mais c'est sûr que daal ñoom si gaal googu lañ kii. waaw non autorité yi moom dama leen ni ñaan rek parce que xam nga kuy dem te yëgoo ko moom boo ci defee dara da nga kaa dimbali rek te yàlla ta waaw ñu ngi interpeller directement monsieur le président de la république muy son excellence monsieur Diomaye xale la jeune la xam na li nga xam ne moo moo nekk ci ndaw parce que day bëgg a uti pour am lu muy tëral ay waajuram ñu ngi koy ñaan rek mu déplorer ay moyens ñu mën ñu dimbali seetal ñu xale yi bu fekkee ne dara da ci am ñun gëm nañ yàlla parce que ay jullit lañ waaw mais ñu bañ a toog daal di seetaan nan ñu siy jàppale buñ defee effort ñun tamit ñu def effort lu ñu yàlla may rek ñu xam ne loolu la ko aja mu ngi noonu mbokk yi métti na lool ndax nag ay xale yu ndaw jékki-jékki génn rek kenn gisu leen ñu ne ci ay gàllañ yéeg ñi ne àgg na àggul doole métti na lool nag wax dëgg fa yàlla waaye itam nag il faut que ndaw ñi xam leen moo di yoonu ndaw du gaaw ndax nag nit ki yenn saay di nga bëgg dara fekk doo ko am waaye nag lu ci mën tam daal moo di itam surveillance bi dañ ko renforcer ci côté code yi ndax jamono bi am na ñu bëri bëri ñu nga xaar ba géej gi xaw a wéedet wala ba yenn code xaw a wéedet daal di ñëw jël gaal yoon kon ndaw ñu bëree bëri ñu ngi ci loru waaye itam convoyeur yi itam il ñu itam l'enquête xool ndax saa su nekk rek dañuy gis yi nga xamante ni enquête cinq cent six cent mille sept cent mille ci ay doomu jàmbur yu nga xamante ne xale yi ndaw la bi loolu aussi si risque ay ca mbokk yi mu ngi noonu lii moo nekkoon seen émission lu xew Sénégal di daje suba jàmm incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi